stade yi daa bëri. waaw xoolal li nga mën a xool ah. ok xoolal li nga mën a xool rek ah. da ngay xool li nga mën a xool rek li nga mënta xool ñeneen ñi xool ko ah. ok Ndiaye ok xoolal bàyyi sa moromu xool lépp mënoo ko xool mais bàyyi xoolal bàyyi sa moromu xool. dégg nga ok Ndiaye ok dafa bëri. Ndiaye ok mais xoolal li nga mën a xool yeah, yeah, yeah, yeah. About no stress, don't wanna cut, let it go. Lack and boy, second move. Lack and boy, felting game, just take more, lack a second more. You got a second, bro? Okay. Uh -huh. second, bro? <laughs> ci élèves yi man gis naa benn classe boo xam ne prof da doon laaj ay verbe de troisième groupe yoo xam ne seen terminaison IR la interroger benn élève élève bi ne ko oui monsieur vas-y élève bi ne sortir partir repartir rebondir mentir prof ne ko très encore yaram ba tàng classe ba yuux rek mu jékki-jékki naan saxiir watiir xiir ndiir soow piir naan wëndeelu bay miir te naan élèves yi tàccu leen